li ñuy wax mooy bien vrai que ni moom egg na ci VIP yi Sa Thiès mais ak lamb gépp Franc ak Sa Thiès la ñuy wax. mais VIP yi. bi tas naa. Mhm. <laughs> non VIP bi tas na mhm. <laughs> waaw boobu kuy kuy VIP. non VIP yi boo déggee. ah boo déggee man de tas sax. ah si ah, ngay bëri Ama Baldé. waaw booy ñaa ngay bëri Modou Lo. waaw ngay bëri Ama. Mhm. Ah, mais mais kon amatul VIP ñoom ñëpp benn la. ñoom ñëpp benn la ñu. ñoo tolloo c'est que ni te moom ci cercle boobu la nekk. moom sax foofu la yóotu parce que moom li mu gën a teg bëtam mooy Eumeu Sène. xaw ma nag lan moo ko ci. dugal xaw ma dugal de ah non non dugaluma la yow ku ne ku ne xam na ni Eumeu seen rek nga bëgg a bëreel xaw li mu daan baal la xaw ma mais tey jii li ak lu làmb gën a soxla mooy sa diggante ak Franc ndax loolu combat jànk la ndax daan nga fi xale boo xamante ni mësta daanu muy rëg-rëg. Franc mosul daanu ci lutte avec frappe bi tey jii maa daan Reug Reug maa daan Franc tey jii Sa Thiès bu ko boolee ci palmarès sam palmarès du ko gën a gis. Mhm. waaw xaw ma nag ndax dina nangoo jël Franc xaw ma ou pas mais ak lu làmb gépp Sa Thiès Franc la ñuy waxtaanee fi mu nekk nii mooy làmb ji gën a ñor mooy làmb ji gën a neex. ah ñu bàyyi mu tontu. waaw mën naa ne làmb jooju. peut-être euh, ci camp camp beneen bi ñoom la gën a intéressé que par rapport sama camp. Mhm. du xeebaar dara. mais man ma jël sama carrière saa yu ma bëree ba daan ba yaakaar ne dama war a yéeg ci kaw di wëlbati di bëri waat ak samay moroom di fa toog ba kañ. Mm-hmm. wala man dama nekk ci benn porte boo xam ne ku ñëw maa naan la entrée c'est impossible. yaay baaraas bi daal. waay mënuma bëri ñëpp du rek rek du faral kenn dàqalewuma palmarès ci sama carrière bëri dóor. Mm-hmm. kenn gënuma ci risque ku ma ci bul victoire doo ma ko victoire kon man ma bëri ñoom bañ supérieur ma ci kaw. donte ko man maay bëri ñoom ñu am ci man dara. lu dëgg li bar bëgg nag la mbëtt bëgg. <laughs> maa ngi ah, mais mais bu fekkee non li bëgg la mbëtt bëgg as li bar bëgg la mbëtt bëgg dëgg la mais bu fekkee dafa toog di xaar yeneen combat ci kaw soi-disant les VIP est-ce que du am retard ci làmb. mais saison baa ngi waaw ma ne man ma toog xaar. que li ma li ma li may séentu moo ma gënal may toog di bëriwaat franc. waaw am naa nag loo xamante ni maa ngi koy visé. te gëm naa incha allah naa si jot peut-être maa ngi ci avancé mais man maa bëggul jël avance boo xamante ni yëggaguma ci domaine làmb jooju. man awma problème làmb su ma neexoon mën a ngeen dégg saa jël na avance ak nangam. mais man maa bëgg lépp lu may def mooy ñu waxtaane ko. ñu teg ko tàmbali liggéey bi. comme nit ñi di jël ay avance ñii di ko teg man mun naa ko. Mm-hmm. te kiñ ma wax wax dëgg yàlla moo ma gënal fukki junni yoon ka may walu di bëri wax. ah di soobee yàlla yow dara du la <laughs> <laughs> fi ñu toll nii benn combat moo fi nekk bu Sa war a mën a xaar Tapha Tine Eumeu Sène combat boobu bon argument bi bi bi bi Sa Thiès joxe wax Sa Thiès ak la waaw mais boobu lañ ko wax. Ah, ci la bokk tamit. te boobu ci la bokk de. ci la bokk de eh, ci la bokk boobu ci la bokk. ci la bokk de mënu cee génn. combat bu ah, neexee mais sa xam nga combat yu neex yi gars yi waxu na gis nga combat Boy Niang Gris Bordeaux wala Sathiès Gris Bordeaux combat du ko dàq. combat du ko mais li argument yi mu joxe na ànd nga ci wala. banti mu bañ a toog du bëre bañ a bëre franc dem xaar yi. ñeneen day bër waaw ma ne ñoom ñuy bëre. ah moom fi mu toll non dinañ bëre. boo yeggee boo xasee plafonné. saison bi tëj na sax. non saison bi tëj boo xasee plafonné moom ñoom yegg nañ ci njombaxtal la. kenn mënu la ne VIP la te génn doo ko ci génne. Ah, ci la ci la bokk. non ci la bokk ci VIP maanaam soo diggee mën a la même bu ñuy lim fukkoon dañ ko ci dugal. Mm-hmm. kon VIP la bokk. mu mënu cee ñàkk. waaw moom nag moom mooy yor lu muy bëgg ak lu muy bañ parce que mbër mu ne tamit di nga am koo xam da lay mm-hmm. foofu la tool rek. parce que tey moom boo seet. comme li argument bi mu joxee argument bi mu joxe Tijaan damaa bëgg nga déglu argument man man d'accord uma ci argument am hmm. xam ah. parce que déjà moom ak Géejawaay ah ku mel ni Lac 2 du bëre moom Balla n'en parlons pas ah il va pas lutter avec euh, Ama Baldé comprendre tey mais trois adversaires rek laa am yu dul bëree la voilà c'est-à-dire cest soo gisee ma man li ko noonu ça veut dire que ni moom ñu muy viser cest à day nekk lu restreint. mais moom mën na dugg parcelle. moom mën na dugg xaaral rek moom mën na dugg. xaaral loolu si deuxième phase bi. la wax parce que cest à moom fu muy yóotu. waaw xam nga déjà ñooñu muy yóotu kan moo si des kon. Eumeu Tafatine. Eumeu Tafatine Gris Bordeaux. Gris Bordeaux waaw. xam nga te ñooñu ñetti ñëpp am nañu combat. waaw. comprendre mais seen combat léegi mu jeex. non attends seen combat léegi mu jeex. début de saison 17 décembre combat yëpp début de saison. début de saison. mais début de saison boobu effectivement su ko neexee mu xaar. mun na wax ni su ko neexee mu xaar mais man dama gëm beneen argument comme quoi que ni mbëru arène bi dañuy ragal mbëru lutte simple yi. ñu jógee ci lutte simple. Mhm. loolu man dama koy gëm léegi. donc mais man mën naa ko défendre moom ragalul leen. moom ragalul leen. déedéet waaw ah, mais kon franc na jox na jox franc franc. voilà mais man je suis d' accord naa ak argument Sathiès fenn bi mooy. Ah, xam nga combat bu boo gis dafay am kuy ci ci ci ku muy. de ku muy arrangé de de dépendre sax ku muy dépendre. ku muy dépendre bu nee maag Bécaye rek dafay am koo xam ne maay bëgg a Bécaye. arrangé waaw naan waaw rek mu am léegi. Sathiès franc Sathiès bu ne léegi léegi rëy xam na balaa guddi gi euh, kii maanaam ci moom ci moom ci moom la des xam nga onze combat la franc def kii am di 17 mhm. déjà différence bi six combats de de différence. mais kii sax. franc franc. ngeen ko waxee diggante ma coince lan la wax. waaw. waaw ah, coince arrangé wu ko. jeex na loolu léegi léegi te pourtant coince nag. gis nga rek mais man gëm naa ni. suñu tegee dara lu wóor cest la question. man man dama man bu ñu tegee dara lu wóor. non non c'est vrai bàyyi ko euh, dama dafa am benn wax ju wax ju solo. gis nga ñun ñëpp ay jeunes même génération lañu. voilà bien mën nañoo magante caat. mën nañoo magante non yéen da ngeen nekk ci lutte avec frappe bi ñoom ñu ngi ci lutte avec frappe man ba may bëri sama combat bii. dañoo wañ sama loxo ma ma taxaw pour waat ak bëri ak rek rek. nangoo ko déedéet boobu am naa leneen luñ ma doon wax li gën loolu mais doon leen ni yoon yoonu làmb ñaar yi ci nekk. Hmm. da ngay doon escalier ku ñëw nga jël. baa nga am sa weccet di dem di bëri di teg ci kaw parce que yegg ci kaw moo lay tax am xaalis yegg ci kaw moo lay tax li say nawle di am nga am ko mais mënoo toog fii ngay bëri koo xamante ni te xam nga bëri tey Bombardier wala Gris Bordeaux wala keneen ñu daan ma exemple. Mm-hmm. du ma wàññi dara. waaye ci yoon tuuti mais boo bëree ak Franc exemple mu daan la. da lay beneen bu ci des boo daanee franc la ñuy wax. mais donc da nga bëgg a sa daan du ma du ma supérieur. que comme daan bi nga daan la benn njëriñ. non non na ma njëriñ ndax lu mu lu mu metti lu mu neex dinañ ko bind ci sama palmarès. waaw mais sur le plan dafa am yenn victoire yoo xamante ni moo ëpp sax ci yow mi ko am. Mhm. que par rapport yenn yenn yenn victoire yi victoire victoire nag. Mhm. mais sag yi tolloo wuñ. ci ci adversaire bi man waaw mënu ma toog chaque fois bu ñu waxee ñu ne kii moo ñëw. su ma bëri woon da nga ba woon xaalis bu weex taal la ngi nii ma jël ko su ma bëri waatee su ma paree bu subaa am na beneen xale mbapat bii ñëw ñoom ordinateur yi <laughs> su bu subaa di ma conseillé na ma bu jëlaat ordinateur bëriwuma ak ñooñu di ci sax ba ma ma dem xool li ci kaw waaw seen ñett la ñu waaw daan keneen ñëw paree guñu boo yaa ngi ñëw as li mu wax tamit li mu wax ah. tamit mën naa ci mën naa ci d'accord parce que moom rëg-rëg li mu daan bërki démb mhm. am na combat te bombardier lañ ko jox waaw maa daan rëg